bismillah asalaamaaleykum mbokk jullit ci mbokk taalibe yi ñu dellu siwaat ak yéen si seen émission bernde ak soxna Billo te nag dañuy dem ba asi daal di leen indi li ñuy wax neem au Sénégal ak au maanaam euh, egg roll léegi nag liñ siy def moom bii moom dama koy def rek à ma façon voilà donc li ma leen doon wax sànq moo si nekk euh, li ma leen ne man dama koy def à ma façon chaque fois dama leen di wax si togg que ni euh, base bi bu ñu la ko joxee c'est pas conventionnel nga ne ok nii rek la war a demee déedéet ku nekk yow yaay xool nga adapté ko selon yow ni nga ko bëggee ak ni mu la ni la jubloo daal donc man li may def mooy damay jël euh, yàpp bi normalement dañ lay wax ndawal li nga jël ko ni mu nekkee cru noonu Euh, nga daal di koy euh, mélanger ak yiy dem si leen. gis ngeen comme process bi dafa gaaw li ñuy def mooy dañuy préparer lépp maanaam li ñuy fi ñuy seppeek yëpp dañ koy préparer teg nga xam ne bu seppi jotee rek du ñu def lu dul génnee ko. mooy ñëw tey nag togg bi dama ko jagleel waa Denver plus particulièrement euh, soxna na fi mi nga xam ne moom moom ma laajoon naa ko toggal. neem donc soxna na fi ak euh, soxna May donc yéen yéen a moom tey ji ak Baye sëñ Saliou ak aussi euh, soxna Yacine yéen a moom tey ji euh, kii bi neem bi yéen lañ ko jox di leen di wax ni j'espère que dina facile à suivre et aussi bu ngeen ko essayer dina leen neex donc yéen daal lañ may tey émission bi